jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD yi euh, le grand maître saltigué euh, Cheikh Waly Ndiaye la ñu fekk si mooy borom xoy yi ñaan yàlla kii général la ci ñaan yàlla surtout rawatina mbirum séeréer kii directeur la ci muy borom xam-xam boo xamante ni tey euh, ñii samp nañ ku ne nguur gu nekk gu fi jaar seeti nga jëmm yi ci seen guy gi ñu samp la. ba soo demee ba neexatoo askan wi ñu wàccee la ndax séeréer si dañoo dëggu bu Sénégal bëggee ñu def waaye bu Sénégal bañee ñu def li Sénégal lay bëgg tey nag dinaa ko laaj fi réew mi tollu ndax ñoom dañuy joxaat président Macky Sall beneen mandat wala dañu koy euh, wàccee euh, saltige bi tey li ñu war a waxtaanee bari na bokk na ci li xew ci euh, dëkk bi jamono ji Sénégal dafa gàllu goose mais laata loolu Cheikh Waly Ndiaye dañ lay bàyyi nga nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan bi sëriñ bi ñoo ngi lay. alamin laa ji dégg ñu ngi lay fay nuyoo ñu ngi nuyu mbooloo mi ñuy teewlu yëpp ci biir réew ak ci biti réew. di ñaan yàlla lépp lu luñ fi waxtaanee rek mu nekk njëriñ te mu te mu ñeexal ñu macha allah. Cheikh guy ga bu ñëwee guy ga xel yëpp xam ne foofu mooy bërëb bi nga xamante ni moo la may lu bëree bëree bëree bëri tey dimbali nga fa ñu bëri samp nga fa ñu bëri waaye ci guy ga la la yàlla xamalee liy xew ci dëkk bi ah, tey mbirum seet ku ne xam ne ne séeréer xooy lay def waaye li la ci yàlla may xam-xam bi la ci yàlla defal. ñu bëri ne Cheikh Waly euh, tey bokk na ci sëriñ si dàq seet ci Sénégal. waaw alhamdulilah rabbil alamin seet moom daanaka alaaji dégg sëriñ bu ko mënul rekk daanaka doo sëriñ euh, parce que nit ki su ñëwee. soo demee hôpital balaa ñu lay jox benn garab dañuy xool lu la jot loolu nag moo waral seet tamit yàlla may nañu ci soo ñëwee ci njaq yi suñ la xoolalee moo xam nga ñëw moo xam nga nekk bitim réew danañ gis li ko waral li tax seet baax am na ñoo xam ne ci seet googu rek si la seen aajo di fajo su seet teewee mën nañ laa génneloo sarax am na ñoo xam ne ñetti paqueti mbiskit mën naa faj seen aajo am ñoo xam ne benn mburu am ñoo xam ne nangam am ñoo xam ne tamit fii ngay jaarak ñoom am ñoo xam ne soo seetee pare ngay xam ne war nga leen a liggéeyal sooy seetee pare tamit ngay xam ne seen ajo bi war naa faju wala du faju kon boog looloo taxit seet alhamdulilah yàlla dimbale nañ ci macha allah bay it ñëpp xamee nañ ñu ko wax dëgg yàlla yi dañuy ay doomu séeréer suñuy maam yëpp nekk ay ceddo doon yàlla doon leen xamal loo xam ne ñëwagut loolu nag mbaax ak yàlla la muy xamal ay jaamam lu ñëwagul kon bokk seet foofu lañ ci toll macha allah. mais adresse euh, bi nga xamante ni tey bokk na ci sa adresse muy guy ga ah, laata loolu guy guy bëri na ay njariñ yoo xamante ni daf koy def ci dunduk doomu aadama. alhamdulilah guy moom daanaka léppam njariñ la. xos xob beeg xas geeg meen meeg xànc geeg lépp rek njëriñ la ci ci guy ci koo xam ne daf koo am ñun nag bëri na loo xam ne ci lañuy ñuy taalee doomu aadama ci guy lañ koy liggéey am na ci loo dañ lay dem ñu samp la foofu ci guy ga comme ni nga ko waxee am na ci loo xam ne dañ koy liggéey ci guy gi ñu ñu yóbbante la ko su nekkee ku bëgg a yëkkateku la wala ku bëgg ubbeeku la wala ku bëgg bayre la wala ku bëgg àdduna bi yëpp topp la wala koo xam ne dafa bëgg samp ci alal ñëw sa loxo loolu yëpp dañ koy liggéeyee ci guy gi yoo xam ne du ay ay xeetu bés ngay dem ji ko uuti ci ay xeetu waxtu at ci ay xeetu melokaan macha allah kon boo guy moom léppam njëriñ la suñ guy googu it comme ni nga ko waxee ñëpp ñu bëri ñu ngi fay ñëw ay président ay buur ñu bëri sang nañ leen fa. baneen bi it ñu ngi ciy fasal ñu bëri di leen ko yóbbante ci bitim réew macha allah. Cheikh Waly dégg naa bokk nga ci sëriñ si dàq ñaan ci mbirum papier am na ñu ne Cheikh Waly ah, boo foto lenn ci say këyit yónnee ko ko am na loo xamante ni boo ko defee soo déposé ñu may la am ñu ne bu téye sa passeport passeport ba ambassade boo ko dugal kenn du ko refoulé. waaw alhamdulilah rabbil alamin loolu moom dañ ciy sant yàlla léeg-léeg ma dégg sëriñ yu bëri di yëngatu ci loolu sëriñ yoo xam ne réew mi sax mun mënuñu koo génn naan dañuy ñaanal ay nit pour ñu génn réew mi wala ñu am papier te ñoom ci moom dañoo am problème papier. loolu nag ay tegtal la yoo xam ne mbir cosaan la mm-hmm. suñ ko xoolee gis ko def ko ci ràbbalante ko jox la liñ lay jox nga boole kook liñ la wax nga boole kook moom muy neex wala muy naqadi ci kàttanu yàlla réew ma nga fa ne danga nga fa am këyit su nekkee visa nga bëgg danga am danga nga nekk ci jàmm te it foofu su dee muy nationalité muy këyit uh, boo xam ne lu gàtt la wala lu guddi it yàlla dana la ko fa dana la ko fa jox kon boog papier dañ koo xam waaye ay tegtal la yu gàtt yoo xam ne sax daanaka bariwut waaye xam-xam la lu xaw a nëbb la rek macha allah waaye tamit yàlla xamal nañu ko ak loo xam ne dañ koo doon ci suñuy maam ak suñuy baay. mais saltige lan mooy faj a lan mooy dindi néew kàttan ah, góor dëgg dafa war a dëgër waaye bala moo dëgër faaw li nga xamante ni yàlla dénk na ko mu cee jaxasoo soxnaam mu tegu fa mu war a tegu. waaw alhamdulilahi rabbil alamin góor moom dëgg-dëgg. li koy dëgëral d'abord mooy bañ a bañ a fo su nekkee yàlla nattuwu la ci fo yàlla mën na laa dimbale beneen biir su dee wàllu néew kàttan la am na ci loo xam ne ñun dañ koy liggéey wax naa waxati ne ki koy liggéey sax du man suma maam la ak sumay baay sunguf la boo xam ne melul ni nit ñi di la jox dara rek tey nga ànd ak sa jabar suba doo mën a ànd ak moom kii moom suñ la ko joxee même soo dundee téeméeri at du tere yàlla dana la bàyyee ci sa ci sa kattan googu kon boog sunguf la bu yéeme boo xam dañ la koy jox traitement bi bëriwul même pas trois jours quatre jours nga tàggoog wàllu néew kattan boobu macha allah. di nga ko jot Cheikh Ndiaye loxo bu bënn koo xamante ni lu mu téye mu dem alalam du taxaw benn place. waaw loolu sangat la dinañ xool lan moo ko waral am nga loxo su bënnee cat dana ko def wala rab wala nàngam bu mu ci mën a doon rek soo ñëwee dinañ la xool lool lan moo ko waral danañ laam sangat bu ñu la jox am lu ñu la jox loo xam ne da nga ko raxasoo su boobaa pare na ci loxo bu bënn sa xaalis dana génn waaye suy génn ci lu am fullaak fayda rek nga koy dugal nga xam ne lii kat maa ngi koy gis fii laa def sama xaalis waaye lii ma dajale woon bi ma koy lekk sax yëguma ko loolu moom suñ la ko joxee mooy tàggoo nga ak loxo bu bënn macha allah ñu ñëw ci li nga xamante ni moom mooy jigéen gu bëgg jëkkër loolu tamit ba tey am na lu la ci yàlla may nga ci dimbale jigéen ñu bëree bëree bëree bëri rawatina jigéeni Siin ak jigéeni Saalum yi. alhamdulilah rabbi alamin loolu moom mooy li ñuy wax rek nit su toogee fi mu war a toog mel ni mu war a mel te sëyut am na gàllankoor bu ko jot suñ xoolee xam ne gàllankoor bi it am na lu ñu lay defal ci wàllu sëy rapidement moom ay weer ya di nga gis góor ñi fëgg sa buntu nga dem sëy nga nekk ci sa ci sa ci sa jàmm waaye loolu yëpp ay tegtal la rek ci wàllu mag ñi nga xam ne it donn nañ ko ci suñuy baay ak suñuy maam macha allah. cheikh bi euh, tey euh, bu fekkee nit koo xamante ni bañ na ko ko liggéey bañ na ko ko yàq bañ na koo xamante ni perti benn àddunaam ndomba gi ñuy dégg ana ndomba gi. alhamdulilah ndomba gi mu ngi fi ndombo kaaraange la ñu bëri dañ koy laajte loolu nag ci wàllu kaaraange la dégg dégg dinaa taxaw foofu ma wax la ne doomu aadama yi dañoo war a am kaaraange. kaaraange soo ko amee rek daanaka sa dund gi mën naa stable. kaaraange mooy lan su nekkee rab daf lay yàqal dootu la yàqal su nekkee cat la cat bi dafay dëñ su nekkee liggéey bu bon dafay dëñ te doomu aadama yi dégg dañoo soxor. nit ñi dañuy liggéeyante man mii nit ñëw na fii ci man ñoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay kenn ki sant ma pour ma liggéeyal ko keneen ki te loolu lu wér laa lay wax sëgam nag ñuy bokk ndey ak baay ñooy dem bay xeexante waxuma la ak jàmbur yàlla yi kon su nekkee danga am kaaraange su boobaa yàlla dina la musal ci noon yi te sooy am teraanga noon dafay yokk su fekkee amoo kaaraange nag mooy waral nga dem ba ci kanam ne amatuma dara wala nga dem léegi eh, xalangu ci accident bi dee ci wala nga dem léegi sa tànk yi bañ wala dara jot la loolu yëpp ñàkk kaaraange moo ko waral ñu bëree ngi tëdd ci lalu hôpital yi lan moo leen waral loolu ñàkk kaaraange la cat def leen ko wala liggéey bu bon wala rab kon boog ndomba googu tamit ci loolu lay dox ak ay cangatam ci wàllu bagaasu séeréer rek bagaasu ceddo gi rek macha allah. mais Cheikh Waly Ndiaye may gis ne léegi euh, surtout place su liggéeykaay wala marché bi ku yeewu rek da nga jël sa bitéelu wis jamono ji wis dafa xew. ah waaw loolu mooy kaaraange parce que soo wisut am na koo xam ne lim laal su nekkee moo la ëpp doolee dafay dafay détourné sa wërsëg. léeg-léeg nga gis nit dend ak nit kooku rek mooy jaay keneen du jaay parce que dafa am lu mu def maanaam soo wisut place bi mun nañ ko doxee guddi yàq ko soo xëyee nag nga wis su nekkee dafa am lu koy yàq ñu fekk loolu tojal ko. wala nga wis ci bayre boo xam ne nit ñi dañuy dañuy ñëw li ma lay mun a waxal daal mooy nit fu mu ne bu mu bàyyi boppam. ci place ci kër ak lu mu munti ne. na nga fexe nga fonk sa bopp nanga fexe nga am kaaraange na nga fexe nga jëfandikoo mbir yi nga xam ne moom la fi maam yi bàyyi su boobaa doo am mbetteel doo am loraange yi nga xam ne yëpp da nga koy dajeeg ci àdduna macha allah. Ah, ñu ñëw ci li nga xamante ni ah, bokk na ci ah, liy noflaayu doomu aadama nit ki dafa bëgg nopp rawatina jigéen gi bëgg nekk moom kese ak jëkkëram te bëggul keneen ku leen rax. alhamdulilah nopp moom lu yàgg la ci mbir mbiri mag ñi ci mbiri xeex la. wax naa la ne la séeréer buñ koy jàngal xam-xam xeex lañ koy jàngal am na loo xam ne xeex la mooy jël xelu nit ke xoolam yëpp mu koy neex mu koy naqadi nga yóbbu ko ci benn jubluwaay. noob boobu nag yàlla may nañu ci ci jigéen bu bëgg jabaram wala jabar jigéen bëgg jëkkëram wala jëkkër bu bëgg jabaram loolu yëpp yàlla may nañu ci wala nga jubook sa patron. wala nga jubook sa mag wala nga jubook say doom loolu lépp ci ay xeet noob la. am na loo xam ne suñ ko xoolee ba def ko ay fan da xam ne lii. soppeeku na loolu moom du benn du ñaar du ñett du ñeent du junne yàlla dimbal nañ ci ñu ci am ay résultats yu leer te ci lu gaaw lañ koy amee macha allah. Euh, cheikh bi tey euh, bu fekkee ne nit la koo xamante ni dafa ragal dëmm ak seytaane yàq àddunaam dégg naa séeréer simit am na yu ñuy joxe yoo xamante ni ku ko suuroo day dindi ngelaw. ah loolu xam nga ko léeg sax suñuy tuuma dëkk sangam ne am na lu fa feeñ dañ naan nañ jëli séeréer su ñëwee la fa feeñ moom dana wax wala mu bàyyi waa dëkk ba kon boog loolu ngelaw day ne ci nit wala rab dégg ngelaw baaxut su nekkee ci nit mën na di dox ci yow ba mu gi mu téye say cër su nekkee rab la mën na di la yàqal rab dina jàpp góor wax naa ko waxati ko am na góor yoo xam ne rab da leen di jàpp ba ànd ak seen bopp moo gën ñuy ànd ak seen i seen i soxna faj naa ci ñu bari ñoo xam ne dañuy masturbé wu loolu rab la rab dana la jàpp ba loo téye dafay dem rab dana la jàpp ba ko ba loo yëngatu rek mu yàqu sa alal yëpp di yàqu dinay tamit di yàqal jigéen loolu nag soo ñëwee ci ñun am na njaq séeréer yu ñuy liggéey ci wàllu rab danañ ko tojal ci saa si raxas sa wàllu yaram boobu ci rab jox la loo xam ne rab ak cat ak liggéey moom dootul yegg ci yow macha allah. président Macky Sall dafa mel ne am na ñu ne am na lettre bu génn ah, moom bëggut a sax ah, ah, def li nga xamante ni moom mooy posé candidat 2024 euh, d'accord nga ci loolu te pourtant ah waa xam nga loolu moom dañ koy bàyyi suñ kanam rek yàlla moom mooy joxe nguur nguur gum jeexal rek nguur gi dana jeex nguur goo xam ne it yàlla jeexalu ko kenn mënu koo jeexal kon dañ koy bàyyi ci kanam yàlla rek moom na def li ko war askan wi tamit def li leen war rek ñu toog xar yàlla su nguuram jeexee kenn mënut ci dara su fekkee tamit nguuram it kenn mënut ci dara loolu daal loolu rek laa ci laa ciy sànni macha allah. noo gisee Sonko jamono ji coow li ak wax ji bëri na trop ci côté am waaw alhamdulilah wax ji bëri na waaye damaa yaakaar Sonko dafa nekk ci logique am parce que comme opposant la euh, président la nekkal moom pour ñu koy bàyyi xel rek wax rek la mën nit ñi di ko bàyyi xel presse bi di ko jël muy yëngal ak yëngal loolu lañ ko bàyyi xel waaye damay wax ne yëngal taxut mu jot nguur euh, Macky Sall it def nii taxut mu téye ci nguur wala mu perte ko nguur daal yàlla moo koy joxe su nekkee yàlla dafa namm ci Sonko nguur kenn mënu ci dara su ko nammee ci kaneen ak kaneen kenn mënu ci dara li ñuy ñaan daal ñoom ñëpp askan bi rek moo leen tax a jóg ku askan bi tax a jóg tax nga reyante ba jot ko nag na nga fexe nga jël bëtu askan boobu nga fer seen ronqañ nga nekkal fi askan bi loolu rek moo ëpp solo waaye coow yeeg xiiroo yeeg nga yëpp amut solo nañ xam ne askan bi sonn nañ nañ respecté askan bi ki fi nekk ak kii ñëw yëpp ku ci nekk rek na xam li la taxoon di ut lan la macha allah. Cheikh Waly la ngay tàggatoo ak lay wax askan wi lay suivre ci MPROD yi yi. alhamdulilah alaaji dégg li may tàggatoo mooy kontaan rek ci yéen di wax na it euh, sama mbokki sëriñ si bëri na ñiy kalaame mm. nañ ragal yàlla dégg. Mm. sëriñ yi bëri lool. waaye tamit noonu la sëriñ yu bari taxuñ tamit ñëpp nekk sëriñ foo dem am na ay exception nit ñi dem nañ ba léegi découragé nañ ci ñaan yàlla sëriñ si léegi daanaka sax ay jéekatu théâtre lañ wala ay jéekatu film parce que léeg-léeg nga gis leen ci TikTok sëriñ boo xam ne da jël xaalisu jàmbur aajo jaamu yàlla nga war cee fanaan ñaanal ko yàlla nga bëgg a fanaanee live ci TikTok naan dangay ngay seet wala ci Facebook wala ci nangam daanaka day day niru mbiru mbiru reetaanlu sëriñ boo xam ne su mbalax génnee da nga ci wax lu ñu génn rek daanaka da nga ci da nga ci ci commentaire yooyu yëpp daanaka day nekk mbiru folklore sëriñ lool taxu koo jóg sëriñ dafay ragal yàlla bëgg yàlla di jaamu yàlla yàlla mooy faj ajo nag waaye ki ñëw ci yow waslul àq ci moom te soo ko wasloo àq te yàlla tax rek yàlla moomu dana xool bëtu yërmaane mu faj aajo boobu kon boog loolu rek lay wax nañ xoolaat suñ bopp bu baax ñii ñaan tamit maa ngi leen di ñaan ñu xool ñi ñuy ñaan ak ñi ñuy jox seen xaalis tey buñ tayal ci ñaan lu parce que yonent bi moo ne na ngeen ñaan su ngeen ñaanee yàlla may leen kon boo dégg yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi def ko ci àdduna yëpp message boobu laa doon lancé wasalaamaaleykum wa rahmatullah ay coo dégg ngeen waxtaan wu am solo yi Cheikh Waly waxtaan mu nekk waxtaan woo xamante nii ku ko dégg xam ne doomu séeréer piir moo doon wax waaye ku ko dégg xam ne saltige moo doon wax ñii amuñu caaxaan ñii ku leen tooñ ñu yàq sa àdduna waaye ñii ku leen bégal ñu defar sa àdduna ay ca numéro téléphone yaa ngi noonu affiché képp ku ko ci woo rek di nga ko jot mbokk yi ñu doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yàlla ngeen bëri jàmm ci dara jëy Muhammad Rasulullah